nañ 2023 ba mu tàmbaleeg léegi bokk nga ci euh, Ousmane Sonko alors aujourd'hui ma moi ma question c'est c'est une euh, stratégie. de euh, euh, de récupération des anti-Sonko wala euh, c'est tout simplement de l'incompatibilité parce que beaucoup de personnes quand même sur les réseaux sociaux ñi ngi wax ni limite da nga acharné sur la personne d'Ousmane Sonko. non mais loolu amul <laughs> xam nga déjà réseaux sociaux il faut ngeen moytu ko parce que c'est organisé war ngeen xam non, war ngeen xam ne C'est organisé comment. mais war ngeen xam ne ne yow soo defoon post nii ce sa post ba dañuy jël lien bi dugal ko si ay groupe whatsapp ñu song la. loolu war ngeen ko xam quand même wala xamoo ko woon. waaw kon man la koy wax donc c' est organisé. Euh, nit ki bul xool looy lire si réseaux sociaux yi. parce que il y' a de la propagande. Il y' a beaucoup de propagande mais c' est un social média quand même. waaw da ngay xool lan moo méngoo ak dëgg même soo siy wéet loolu ngay xool. nit loolu lay xool du xool li nit ñi wax su dee lu nit ñi wax rek fu nit ñi waxee rek nga bàbbee ku fa nekk too nit yow da ngaa nekk da nga ànd ak ngelaw li rek sa ngelaw li nag fu ne la mën a yóbbu da ngay xool luy dëgg nga wax ko loolu amul par exemple opposition de l'opposition bu ñuy wax wax ma ban opposant laa mos a attaqué waaye voilà merci waaye attaqué nañ ñu ñun pourtant ba ñu attaqué ñun kenn waxul ne ñooñu opposition de l'opposition lañu les gens ne sont pas objectifs dañu nekk par l'eau ñun nag nekkuñu si yooyu ñun si ñu nekk passage am parcours bu am mënatuñu nekk di di di leem non ñun gëm ne Sénégal dëgg moo koy defal dañ gëm ne Sénégal affronter problème yi population choisir élection 1 dama du su ma tëddee dinaa nelaw ba doyal parce que xam naa li ma def forte conviction moo tax ma def ko population yi ñooy war a choisir mais nit warul denc lu mu gëm nëbb lu mu gëm pëtam pëtamee ko fekk pour rek bokk ci mbumbaay bi non non non loolu amul par exemple opposition de l'opposition boobu mosoo dégg ma attaque kenn ku nekk si opposition bi pourtant ñu ngi ñuy naan opposition de l' opposition ba ba sax faatu di ko répété damay yéen opposition de l' opposition bonne opposition est ce que da nga maa mos ma dégg ma attaqué Khalifa Sall wala Déthié Fall wala euh, Habib si wala euh, Aïda Mbodj wala waa Yewwi laa lay sital Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Loum Youm euh, est ce que mos nga mos nga dégg nañ ma bal Ousmane Sonko également kañ ñu ma dégg ma attaqué ko moom moo ñu attaqué comme ni nga ko waxee ñu tontu ko jeex na xam nga nag échiquier politique bi kenn moomul kenn fii koo fi attaqué mu tontu la mais loolu jeex na mais sinon kañ lañ ko attaqué xanaa léegi wax lu méngoowul ak lu keneen ko wax loolu déli la yow ñu toog ñu toog fii yow même question yi ngeen di posé yow di nga posé question jàpp nga ne question boobu moo baax ndey faat jàpp ne beneen question moo baax léegi nag nit ñi au lieu ñu jàpp ne ne kii xalaatam la joxe kee joxe xalaatam dañu naan kii ba muy wax kee moo muy wax waaw da ngeen foog ne nit ñi dañuy yeewu tous les jours di xool nit ñi te nit mën a bouger nit mën a dee suba ñun dinañ jël suñu àdduna di ko teg si nit naan lii lay def ak dinaa ko si tontu déedéet on voit le Sénégal mm. su situation amee c' est pas parce que situation bi am na nu mu toll ko doo joxe sa point de vue. mais incompatibilité bu 2024. 2024 c' est dans quelques mois. est ce que du nekk avantage du président de la république. parce que bu ngeen demee élection forcément di ngeen dem deuxième tour tey comme que jubóowu leen xam naa ne du ngeen mën a ànd ci deuxième tour bi de. non non du ke non amuñu problème <laughs> loolu laa lay wax léegi c'est que c'est léegi contradiction problème la kon xamuñu li démocratie démocratie la contradiction c'est une très bonne nouvelle waaw mais parfois nga juwaatloo xalaat ak ku mel ni Ousmane Sonko par exemple euh, yaa ngi wax sànq ni euh, yow da nga contre kuy wootee appel à l'insurrection mooy xeex yeeg. c'est des questions privées. waaw question privée mais ci yu mel noonu da ngeen de bokk leen ci xalaat. moom par exemple euh, mi ngi doon wax que ni ku leen voteel mooy voteel na président Macky Sall yooyu est-ce que dina tax yéen ngeen ngeen ngeen ngeen mën a def bloc. non bul bul bul jaawale ñaari. Hmm. moom lu mu wax sos la. ah man man man li ma wax point de vue la. ok c'est différent man dama joxe sama point de vue man gëpp man mais attends. parce que ah, ban ban combat su ma doon président Macky Sall kon yaa yaa non non non du loolu du problème parce que ñi ñëpp ñu ngi dajaloo di di xeex suñu waree xeex non loolu du problème moom laa la wax sànq point de vue yi dafay mën a wute man jàpp naa ne question privée nit ki balaa nga koy jàppale da koy naan li nga wax yor nga ko yor nga ko wala yoroo ko loolu mooy fulla que dama jàpp ne man ku dul ku dul défendre dëgg man mënoo maa intimider maanaam yow défendre dëgg

combat combat parce que gis fait affaire prolongement Moi, je dama bëggoon pas si affaire justice bi d'ailleurs day am prolongement parce que prolongement bi Si suñu demee maintenant tribunal mais nous régler d'abord la question de l'accusation c'est très important maintenant si suñu devons tribunal le tribunal, combat le peut-être maanaam tey man dama jàpp te loolu dama ko wax avant verdict mais un leader politique qui est présent sur l'échiquier politique qui fait parler de lui sénégalais Amnukoto, am Mais ko a ko mais affaire diffamation la le ko candidat c'est trop léger. et pourtant aujourd'hui date de fixation oui pour pour pour le, 17 avril. par exemple c'est une catastrophe. par exemple peut-être que nous allons le voir après mais dans ce jël en un appel yu am. juridiction sénégalaise nous sommes vous pensez que le délai est trop rapide. mais est-ce que vous le délai. de recours la procédure est très rapide. est-ce que vous le délai délai. Mhm. pour interjeter appel. C'est le code de procédure pénale article 485 délai c'est 30 jours après nous signifier le jugement mais 30 jours yi sax Maintenant, le délai pour def appel ça Nous Nous, fixer date parce que tout simplement parquet bi def un appel de Paris. et le ministère public et Lolo mais c'est c'est extraordinaire Quel musul gis lu mel non motax gisal mooy problème de la justice de notre pays moo parfois gars yi dañuy naan justice justice man damay bëgg ñuy faram-fàcce mbir yi di expliquer sénégalais yi ñuy xam parce que mbirum état mbirum justice mbirum gouvernance mbirum assemblée mbirum économie etc dafa am ñu ko jàng ak ñu ko jàngul dafa am ñu ko xam ak ñu ko xamul dafa am ñoo xamantene ne ne soo leen ko expliquer wul duñ ko xam tey suñu wax justice dañuy globaliser mais li gën a am problème si suñu justice un lien ombilical entre le président de la république à travers son ministre de la justice et le parquet Nous avons les magistrats du debout Je xamante le ministère public faut foofu le problème bi parce que je vais te dire deux choses yo xamantene C'est extraordinaire mais lolu mo indi problème ci réew ben tu bi moy procureur devant un juge procureur bi mu viser ay articles suma djoubul soo demee si article 139 du code de procédure euh, euh, euh, code de procédure pénale soo demee si article boobu dañ lay naan procureur su visé article entre 5 article 56 jusqu'à article 100 ak article 255 il faut viser visé su ko le mandat de dépôt est immédiat soo ñëwee a la defal mandat de dépôt juge le juge est lié et même bés a une liberté provisoire

le parquet moom mooy enrôlé xam nga affaire bi gaaw parce que ministère le parquet bi mooy en fii fii ñu cour d'affaires.